الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله mbokk jullit yi ñu ngi sant suñu boroom subhanahu wa ta'ala di seede ne yàlla dong mooy ki yeyoo ñu koy jaamu yonentam ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom dong moo yeyoo jàngale nu ñuy jaamoo yàlla yàlla du nangul kenn la nga xam ne danga koy defal ci diine ji lu dul la nga roy ca yonent boobu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla texe àdduna ak texe àllaaxira kenn du ko boole lu dul ko ragal yàlla gannaaw loolu mbokk julit ñu ngi nii tiim jeexitulu weeru koor ku wax jeexitulu weeru koor fokk sa xel dem ci li ñu tudde zakatul fitre ñu tudde ko azakay dog dog koor looli xamal ne farata la boo xami ni nii mboole mi boroom xam-xam dañoo dëppoo ni loolu farata la jële nañ ci abdullah ibnu omar radiallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam day moom moo farataal suñu wóoree ba pare képp koo xami ni nii am nga nga génne benn saa muy lii jege ay lu nekk deux kilos la ko wër na doon loolu da nga koy génne ci tàndarma wala génne ko ci lu ñuy wax orange wala génne ko ca la nga xamee ne nii moom lañ daan jël ca meew yañ daan wayal loolee mbokk nekkoon la nga xam ne muy sunu dund donte ne ni borom xam-xami lislaam yi li ñu mujj gis moo dina loolu ma nekkoon dund waa Madina waaye gox bu nekk la ëpp ca la ngay dundee moom ngay génne zakat boobe loolee kon su ñëwee dëkk bu mel ne Sénégal la ëpp ci suñu waa réew la ñuy dundee loolu moom mooy li nga xam ne mooy ab ceeb xanaa lu dul lenn ca àll ba nga xamee ne nii la ëpp la ñuy dundee mooy la nga xam ne muy dugub mbokk zakatul fitri mi ngi nii kii di Umar ibn Shuayb nee na day kii di baayam jële na ci maamam yonent bi bam nekkee ca madina yónnee na ndaw fële nga xam ne mooy makka di wax ak waa makka ne leen ngalawaay nañu génne la nga xam ne mooy zakatul fitr gaa yi wër ci mbedd makka yi di ko jàngale loolu mbokk kon day gën a feddali ni lii farata la ci farata yi muy farata boo xam ne nii dafay jóge ci li nga xam ne muy jëmm ji mooy jëmm yi ñoom ñooy génne zakat boobu mu safaanoog zakatu alal bi nga xam ne at ba at lay doon wala mbay ba mbay lay doon waaye sa jëmm ji daa am zakat abdullah ibnu abbas radiallahu anhu nee na yonent bi salallahu alayhi wa sallam day ma farataal ñu génne zakatul fitre muy laabal la nga xam ne muy jullit ci koor ga nga xam ne waroon na ko lépp lum ca waxoon ci wax ju ñaaw lépp loo xam ne ma ngi ko doon jëf ci jëf ju ñaaw wala wax yoo xam ne amul benn njëriñ zakat boobee bu ñuy dana ko ca laabal ba mat sëkk loolee itamit nekkaat beneen jubluwaay jubluwaay boobee mooy lan mooy dana nekk loo xam ne dañ cay leel la nga xam ne mooy miskin yi loolu moo tax ba mbokk julit lii nga xam ne nii mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñu daan wax ni ki bàyyiwul wax lu bon wala jëf lu bon yàlla day soxlawul muy bàyyi la nga xam ne mooy kooram waaye it yàlla ñu gën a xam pendant un mois boo xam ne sa làmmiñ tarxiisul benn yoon waxal la loo xam ne nii alu jaaduwul la dana jafe su ko defee noonu la zakatul fitri di ñëw di remplacer njuumte ya nga defoon ci koor ga borom xam-xam yi ñu ni moo la nga xam ne ni mooy ñaari sujjuut ya ngay sujjuut ci julli la heure boo jullee ba pare julli ga yàqu wala yu am lenn loo xam ne nii manqué na ca am na loo xam ne yokk nga ko ca bokk na la nga xam ne nii moo la koy saafaraal mooy ñaari sujud ya ngay sujud naka noonu it zakatul fitre noonu lay taxawee ñaari place yow mi koy génne dana la laabal ca loole waaye it doon njëriñ ci miskin ba nga xam ne nii fa la jëm comme zakatu alal it naka noonu noonu lay laabale alali jullit bi ci lépp loo xam ne duggoon na ca ci yigu ko ci loo xam ne nii jaaduwu ca woon loolu mbokk mi ngi noonu ñetteelu mbir bi zakatul fitre di taxaw mooy sant yàlla nag subhanahu wa taala mooy yàlla mayoon na la weeru koor a ngi mu faratal ko ci yow jeexal ko ci jàmm te moo ne day bu ko neexoon at bi yépp nekk koor comme at bi yépp nim nekkee julli mu yemele ko ci ayyaaman maadudaat ay bis yu néew yàlla wërsëgal la nga woor ko gannaaw ba nag nga wëlbatiku sant suñu borom subhanahu wa taala te mooy la nga am as néew ci sa alal nga yëkkati ci nag jox ci masaakiine yi jublu ci sant sa borom ñeenteelu taxawaay bi zakatul fitre di taxaw mbokk it mooy indi cofeel diggante julit ñi ndax ñi nga xam ne dañu nekk ci société bi seen loxo jotul seen gannaaw waaye ñi nga xam ne am nañu ku nekk am loo jële sa kër teg ko ci seen loxo loolee mbokk miskin yooyu di leen ñaanal société bu mel noonu suñu borom nee na dana leen yërëm ba muy wax wal muminuuna al muminaat baaduhum awliyaau baad ba muy wax yuqimuuna salaa wa yutuuna zaka borom bi mën a ñu mel noonu day sa yarhamuhumullah bépp société boo xam ne ñi am ñi ngi bàyyi xel ñi néew doole di leen jàppale fokk yàlla subhanahu wa taala jàppale leen mu bokk ci it loolu mooy mbokk julit lii nga xam ne mooy bisu iit daa war a nekk bisu mbégte ci ñëpp nan la mbégte di amee ca kër ga cin tàkku fa mbokk loolu yi da ngay gis ne doy na war lool moo tax islaam daa di farataal la nga xamee ni nii moom mooy bisu iit miskin yi nekk ci société bi ku nekk nañuy jël jox ko ba moom it mu mën a am la nga xam ne moom lay bége ci it gi comme ña nga xam ne dañoo am noonu lañ koy bége mi ngi noonu donte ne am na xadis boo xam ne nii sax xadis bu daif la waaye bu ñu tegtalee ya nga xam ne moo ci aju yépp day doon lu koy yóbbaale mooy li suñu yonent wala liñ ñey ñorot na ci xadis fexe leen ba miskin yi ngeen woomalal leen ba bisu keroog duñ dem di wër di ñaan mbokk génne sarax zakatul fitre loolee nañu xam ne suñu borom yàlla subhanahu wa taala da koo jël utal ko charte charte ba mooy lan mooy waa ji ne nekk julit na nekk julit ñaareel ba na am loo xam ne ëpp na li muy dunde moom njabootam bi si keroog la nga war a dunde boo ko amee borom xam-xam yi dañ ne dépense suba bi da nga koo war a génne zakatul fitre daa di yaakaar yàlla ci li ci des mi ngi noonu ca loolu it mbokk da ngay gis ni wallahi luy mën a nekk la ñu bàyyi ci xel bu baax suñu borom yàlla subhanahu wa taala gannaaw jullit bi nekk jullit nekk koo xamee ne nii moom mooy am na zakat zakat boobu itamit dañoo gis ni dafay war ci yow nga génneel ko képp koo xamee ni nii yow yaa gàddu ab dundam ca munta yor ab dundam loolee ñu bàyyi ci xel bu baax bu dee ne ñi nga xam ne ñoo am déññal ko seen bopp loolu de mooy la gën na doon soxna nga doom nga kum mën a doon nekk sa kër baay am nga kattan nga génnal ko sa bopp waaye itamit bu ko bàyyi boolee génnal famille bi yépp it loolee da ngay gis ni dana doon loo xam ne ni lu baax la ñu bàyyi xel mbokk julit ne zakatul fitre it du ne ña woor rek la war déedéet wax naa la sànq ne ahakay ñi woor moom dana leen laabal ci rëcc-rëcc yi nga xam ne amoon nañ ko ci biir koor gi waaye nag zakatul fitre yi warul ñi woor kese suñu borom yàlla subhanahu wa taala dafa dogal ci ni jullit daa war a bokk ci ñiy leel miskin mu wax ñu ne waa sawara su dee waa ajjana ña nga ca seen biir ajjana ya di leen laaj waaw yéen lu tax ngeen sàggan ba dugg ba dugg sawara la ñuy jëkk a wax mooy ñun daawuñu julli ay waaye ko am mbokk bu dul julli laayu ko biir ku dul julli du jullit laayu ko biir mu bokk ci ñuy julli ñun de daawuñu julli waaye daawuñu leel miskiin daawuñu leel miskiin ñaareelu la leen dugal ak sawara gannaaw bàyyi julli daawuñu leel miskiin loolee moo tax islaam farataal ab julit mag la ndaw la woor na wóorul comme mënoo bus bu ne nga leel miskiin wala semaine bu ne nga leel miskiin wala weer wu ne nga leel miskiin au moins at mu nekk nga leel ci benn yoon miskiin looloo tax képp kuy doomu julit même ki juddu bii ki juddu sunu bisub tey bii weeru feeñ moom fekke na weeru koor dañ koo war a génneel zakatul fitre déwén mu génne ko ba baa muy dajeeg boroomam nga xam ne bu dundoon juróom-ñaar fukki at génne ne juróom-ñaar fukki saa yoo xam ne dina jëm ci miskin yi kooku insha allah du bokk mukk ci waa saqar mi nga xam ne bu ñu leen laajee ñu ne la ñu fi dugal mooy daaw ñu leen miskin yal na yàlla musaluñ ci sawar saqar mbokk lu mel noonu it la borom bi di wax ca saar ya gën a gàtt mu ne araayta lazi yukazibu bi diin ndax xam nga kan moo weddi ne bi si penc dana ñëw ah kooku kan la suñu borom mu ne araayta lazi yukazibu diin fa zalika allazi yad'u l yatim wala yuhuddu ala taami miskin ki nga xam ne weddi ne bi si penc mooy ki nga xam ne day bëmëx ay jërim du leen jàppale waaye itamit daawul nekk di ñaaxaate ci leel miskin mbokk miskin suñu borom yemlulak ñun ci ne nañu leen leel waaye dañoo sant ñuy ñaaxaate suñuy morom ngir ñu leel leen loolu it képp kenn ci ñun war naa ñaax moroomam mu jéem a génne azaka muru koor te xam ni azaka boobee bokkul ak sarax ordinaire sarax ordinaire foo ko génnee baax na amma zakatul murum koor dafa am waxtu buñ ko war a génne comme julli gi ni mu amee waxtu loolu moo tax ba képp koo xam ne génne na ko avant muy julli ji yeneen bi alayhi salaam nee na kii de am na zakatul fitre amma bu dee daa bàyyi ba julli ba pare doog koo génne mu ne kooku day sarax la am ci sarax yi mu nekk contraire tabaski koo xam ne da ngaa rendi sa xar avant ngi julli ji yonent bi nee na yàpp rek nga am amma ki julli ji ba ñëw doogo rendi kooku moo am tabaski loolu ñu bàyyi ci xel bu baax su ko defee zakat boobi ñekka yeyoo woo leen ñu jël su ko bala ngaa julli ji su dee ne tëna ba të nga dem boog foo xam ne dañ ko fay joxe di ko dajalee nga joxe ko foofu au moins yow mu génn say loxo avant ngay dem fa ngay julli ji lii di mbir boo xam ne mbokk dañ cee war a bàyyi xel bu baax wax naa la sànqit ne ñiy woor ak ñi dul woor ñépp ñoo bokk di génne la nga xam ne mooy zakat boobee mbokk bi ñu demee ba jamono dox doomu aadama yi lañ daan jëflante ci wàllu ñam mooy dañ daan def troc lu yàggul dara xataa suñu dëkk bi soo soxlaa dugub yóbbu sa ceeb kay yóbbu ñebbeem xaalis daawuñu ko jëfandikoo ñu dem ba jimmi jamono doomu aadama yi li ëpp seen jëfandikoo muy xaalis boroom xam-xam yi nag ca la ñu am la nga xame ñu ni mooy ixtilaaf mooy zakatul fitre ndax nit ki am na droit génne ko xaalisam déet li ñu li wax mbokk mooy la ëpp ci ñoom day dañ ne déedéet zakatul fitre kenn du ko génne xaalis li ñu tuddee mazahibul arbaa mooy ñeenti ngir yu mag yi nga xam ne mooy imaamu malik imaamu shafi imaam ibnu hambal ñoom ñëpp dañ ne déedéet kenn du ko génne zakat kenn du ko génne xaalis soo dellu woon ci ngëru abu hanifa ñoom dañu ne zakatul fitri jubluwaay bi mooy nañ bégal miskin bi ca la nga xamee ni nii mooy bisu it bi nañu xool li gën ci moom ñu jox ko ko ca mooy nañ ko jox xaalis bi loolu moo gën ci moom loolee mbokk ñaari mazhab yooyu am beneen mazhab bu digg doomu te it boobu lañ tànn di ko tànnaloo nit ñi nañu xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak i sahabaam ñam lañ daan jël di ko joxe soo mënee jël ab ceeb gis ko ko aajowoo nga jox ko ko kookee mbokk xamal ne loolu mooy la gën am maa nag bu dee yow nekk nga ci jafe-jafe yoo xam ne dajale ceeb di ko joxe waa ji nekk France wala nekk ay Angleterre ci gratte-ciel yi di jël foofu fukki ci lay ceeb comme koy sarax xamu ko waaye mën na am bu doonte ne yónnee ne ci yónneekaay yi xaalis loolee dana leen jëriñ loolee dañuy gis ne mën naa nekk miskin bi nga xam ne it xëy na sori na la sori waaye goo xam ne wóor na la ne kii day soxla na zakatul fitre bi ca mënoo jël ceeb bi di ko ko yónnee nga jox ko xaalis loolee mënees na koo dégg mu doon lu digg doomu ñi jàppandal nga mën a jël ceeb bi jox leen jëlal ceeb bi jox leen loolu mooy la gën ndax loolu yeneen ci bi doon def ak i sahabaam ña nga xam ne nag am na ay xat-xat su boobaa nga doog a jëfandikoo maslaha ba nga xam ne dañ ne mënees na koo génne xaalis te ñoo ñuy wax loolu it fañ ko teg mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa yónni Muaz ibnu Jabal ca Yaman mu dem foofee di dajale zakaat yi ak la nga xam ne mooy impôt yi ñuy jële ci ahlul kitaab di ko yónnee Madina waaye Muaz bi mu demee lan la leen wax mooy yi ëpp ci yéen ay commerçant la ñuy doon yor ay tissi li ngeen mën nar a jox ci dugub jox leen ma ko ci ay tissi loolu moo gën a yomb ci yéen ca sahabatul kiram ca Madina day tissi yi moo gën dugub diñ leen di yónnee au lieu mu jël zakat bi ci dugub mu jël ko ci tissi boroom xam-xam yi ne nañ ko génn ci xaalis it ñoom loolu lañ def qiyaas ñu ne maadaama Muaz remplacé ne lekk ca la nga xam ne mooy tisi yeneen bi saxal loolu ko nit lekk bi bu dee ne yow dem nga ci borom bitig bi man kat damaa war a génnee lii nga xam ne mooy deux kilos ñaata lay jar mu ne la mille francs nga ne kon mille francs daa di xool la nga xamee ni nii mooy sa njaboot nga calculer ko mille francs mille francs xool ay masakin nga jox leen ko nga xam ne miskin bi boo ko joxee na ko ah lii zakatul fitre la moom bu ko def bu ko defee su bëggee léegi dem ci bitig bi jënd ab ceebam yóbbu këram boroom xam-xam yi wax xaalis foofee lañ ko teg allahuma lu dul wax naa la la nga xamee ni nii moom lañ ca tànn doonte ne lu ca waaye def teg na ko ci waxi boroom xam-xam yoo xamee ni nii nangu nañ xam-xamam su ko defee li ñuy ñaan rek mooy lépp lu ca waa waa ji def na yàlla tax gannaaw ba ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala boo la ñu nangul ñun ñëpp mbokk lii moo aju ci li nga xam ne mooy zakatul fitre boobee ñu bàyyi xelit ni tey jii mooy séentu bu jëkk ci weeru koor ngalla waay yow mi nga xam ne yaa may dégg te fekk ni wooroo woon la nga xam ne mooy bis bu jëkk boobee di aljuma nekkoon nga ci erreur weer wi waxuñu daa feeñ Arabie saoudite wala Turquie Sénégal gii ay gox yu bari weer yi feeñ na fa tey la ñuy séentu erreur bala daroon ca koor ga bu mu la dal ci korite gi nga naan man ooma vingt neuf ñu naan weer yi feeñ nga naan duma wari soo déggee xabaar yu leer ci weer yi feeñ maa ngi lay ñaan nga dog sa koor googee soo paasee nga fay benn bis yàlla subhanahu wa taala nangul la yàlla subhanahu wa taala baal la jaamu yàlla bu ci maslaha ak ndey ak bàyyi ay dëkkandoo lii di koor ponk la ci ponk lislaam kenn du ci négocier ak kenn loolu ñu bàyyi ci xel bu baax su dee ne itamit la nga xamee ni nii moom lañ jëf nii ngeen gis ko mi constat mbokk yàlla nattoo woon nañu tëjal ñu suñuy jàkka ab diir ba tey yàlla ubbi ko ba mu ko ubbee itamit yàlla am na ñu may xam-xam yu médecin yi ñuy jàpp ne fu mbooloo di dali nañ jël ay mesures mesures yi ku nekk na def digganteem ak moroomam un mètre gannaaw ba ku nekk na indi benn maskam looloo tax ba mbokk jullit ñi ngi leen di ñaan di leen ñaanaat am nañ fii ay problème ñu bëri ñëw fii ne dañuy dugg ci jàkka ji sans masque mbokk loolu jaaduwul boo demoon marché policier yi ñu ngi taxaw foofu néegub yàlla biir ñi ngi leen di ñaan bala fee kenn ñëw na indaale maskam na indaale sijaadaam boo ñëwee laajuñu la dara la nga xam ne mooy gel yi mi ngi ñu teg ci bunte bi laal ci say loxo lu mu doon njëriñ ci yow nga doogu dugg si ci jàkk yi ñetti charte yi mbokk la ñuy ñaan képp koo xam ne dugg na ci jàkk yi heure boo xamee ne jàkk ji fees na gis ngeen ñu tëj porte yépp keneen bi fi dugg di xatal ña nga xam ne ñoo fi nekkoon bokk nañu it bu dee yàlla dogal na weer wi feeñ ña ak bis bu mu feeñ na doon tey ci guddi daan julli suba wala ñu julli dimanche julli googu yi tamit bëgg nañ ko teelal def ko 9 heures bu dul woon ak fitna bi am nii tey mën nañ ko yóbbu ba 9 heures et demi sax waaye xam nañ nit ñi ak seen xir gis ngeen àjjuma ji rek ñi nga am problème ci nit ñi di fëgg dañ fiy dugg loolu tax ñu bokkoo teel a julli 9 heures ñi jege dañ ko fekke si daal di julli ñu ngi ñaan it képp koo xam ne yaa ngi dégg xutba ba ca dëkk fa sori te fa nga nekk dañuy julli jarul ngay déplacé wu ak la nga xamee ni nii mooy feebar yi am loolee mbokk mbir la boo xamee ni nii kon moom lañ doon wax ci wàllu googe di ñaan yàlla subhanahu wa taala ñu ngi nii di jeexal suñu koor ci fitnay corona ñu ngi nar a julli it ci fitnay corona lii ñu dund ren ñi yal nañu yàlla musal balaa déwén yàlla teggil ñu corona ba mu nekk waxtaan ci ñun yal na yàlla fegal ñu feebarab corona yal na ko yàlla féewéeleeg suñuy jàkk féewéele koog suñuy ñuy julli ci suñuy jàkka yal na yàlla defal ña ca faatu ñëpp àjjana seen wàccuwaay ña ca feebar ñëpp mu yëkkati leen ci jàmm ña ca ñàkk ay liggéey ak ay alal yëpp yal na yàlla wuutalal leen la gën ña nga xam ne ay fitna daan na leen ci ci xat-xat ñu tëj leen fa ñu nekk yal na yàlla subhanahu wa taala yombalal leen ñu jokkoog seen famille ci jàmm yal na yàlla subhanahu wa taala defal ñu aafiye fi dunya wal axira yal na jeexal wéeru koor ci boole xolu julit ñi yal na jeexal wéeru koor ci yóbbu suñuy bakkaar yal na jeexal yor wéeru koor ci ubbil ñu bunti njéggalam ak bunti yërmandeem allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar allahumma inna na'udhu بك من البرس والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين